li ñuy wax xeebug nobel eh, parce que day fekk nobel ruus xam nga bu nobel ruusee ba dara desatu fa lu mooy ñu war a ànd ci ci ci bëggante ci wàllu yiw eh, yow nga uti nga bëgg a utiliser nobel gañ joxoon bañ lay takk waaw bañ lay takk nobel gañ la joxoon loola bu fekkee ne nga dem ba mu yàgg nga bëgg ko utiliser di di xeebug nobel mooy natt sa jëkkër fu fu fu cofeelam toll ci yow fu mbëggee la ba da ngay wax lu waxuwul ba da ngay def lu defuwul ah xeebug nobel dafay yàq sëy ku góor kii itam euh, utiliser euh, dund maay dundal maa ngi sàng maa ngi wodd maa yor kër gi doole jooju bu fekkee daf ko bëgg a utiliser euh, peser ko ci kaw ndaw si ba tax na du doxal yoon du wax yoon du jëf yoon ndax dafay jàpp ne am na atu atu bi mu yore moom moo yore dund bi moo yore kër gi moo yore li loolu bu yàggee dafay dafay rëkki mbëggeelu ndaw si ci moom te bu rëkkiiku ci ndaw si ci moom dafay Euh, dafay dafay dafay tas kër gi kon euh, ku jigéen ki bu mu xeebu nobel na def ne sëy bi wax bis bu ne mën a jàpp ne rek tey laa ko war a mën a gën a sëy waaye bu mu xeeboog nobel luñ ko ci jox na jël ku góor ki bu bu mu utiliser force bi mu yor force dundal ak sàngal ba bëgg a teg ku jigéen ki loo xam ne kenn waru ko teg ki sa nawle boo àndal yooyu dafay bokk ci euh, yi nga xam ne dañ koy war a bàyyi xel ci yi tas sëy di yàq sëy yi ba alxuraan di ñu wax waa asiruhunna bil mahruf te docteur Marine di ñu ko euh, awoka boobu di ñu ko tekkil mu ne ci biir loolu dangay gis ne góor euh, ak nature bi ko yàlla bindee jigéen ak nature bi ko yàlla bindee am nañu différence am nañu différence ci wàllu moral am nañu différence ci wàllu physique am na nañu différence même ci wàllu euh, ni yaram bi bindoo gis nga góor suuf la dañ ko bind ci suuf mooy suñu maam aadama moo tax góor moo ëpp résistance jigéen góor yaramam ak kattanam mën na màggatal ñetti jigéen parce que suuf la dafa dafa dëgër euh, du du gaaw a dee amaa jigéen boo gisee góor ëpp ko résistance parce que moom ci leer lañ ko bind ci ndox ci lu tooy luy dund lañ ko bind mooy gën a gaaw a màggat moo ëpp taar moo ëpp intelligence mais mooy war a gën a gaaw a gaaw a màggat bokk na ci nature yi yàlla bindee góor mooy góor bëgg na gis toujours jabaram di ko wan mbëggeel jabaram euh, sëy bi jàppal yow ndaw si ne ba ngeen di doog a sëy ba keroog ngeen di am quatre-vingts ans bis bu ne ku góor ki soxla na nga di ko wan ne ko tey laa la gën a bëgg yow ko jigéen ki yow ku jigéen ki tànk yaa ngi ko bul jàpp ne rek yàgg ngeen waa ji xoolatu la bis bu ne ci ci xel xolu góor ci deratam yu daw ci moom mu ngi sox mu ngi bëgg soxnaam di ko gën a jege soxnaam di ko gën a war a mbëggeel soxnaam di ko gën a war a mën a toppatoo loolu góor du du màggat ba retraité wu ci loolu am jigéen itam góor gi war bàyyi xel ne e, dafa am lu yàlla def ci moom mooy e, jigéen dafa bëgg li alquran di wax e, xawlul maaruf sadaqa kaddu gu gu nooy ey kaddu gu rafet kaddu gu gu yiw kaddu yow de soxna si tey wax dëgg yàlla sa toilette bi rafet na dafay dund dafay mel ni li alxuraan wax ne boo am na loo boo ko defee ci nit dafay mel ni dund nga dundal nga àdduna yëpp mais boo ne ko sa toilette bi rafet na euh, boo ne ko yiw nga boo ko mm, sa cuuraay bi boo ne ni nga defaree sa néeg boo ne ko ni nga defaree yooyu kaw ku yooyu baat yu sell yooyu yu yiw yooyu yu teey yooyu loolu dafa bokk ci tabiya jigéen lu jigéen di dund ci natturam boo ko ko waxee rek dundal nga ko waaye ama boo soofantelee na muy defaroog na muy mel ak na muy kii rek euh, bu boobaa mën naa am sax mu wan la ko nga wan ko gannaaw doo ko jéem a xool nee na loolu dafay mel ni ku rey nit kon léeg-léeg sax soxna si dana dem ba xubbi waaw xubbi daas ba mel ni Fatou laal euh, waaye euh, nga dundal ko yow nekkuy rafet nga tey sa toilette bi rafet na gis nga ku nekk ci ñoom dafa am lu yàlla def ci moom bindaale ko ci moom loola daf koy dund waaw kon euh, nga nga dabu ko ci loola pour pour pour neexal kër gi parce que ku góor ki bu yëgee ne soxnaam tey la ko gën a bëgg di ko toppatoo jege ko toppatoo yëpp euh, loolu dafay dafay feeñ ci tabaxinu famille bi te xamal nga ne famille bi mooy leen ci mooy nation bi ku jigéen ki bu yëgee ne ndeke tey la ko jëkkëram gën a nopp tey la ko jëkkëram gën a xool toilette am ak taaram euh, ma ngay dund ma ngay dund loolu day feeñ ci dund famille bi dund famille bi loolu moo tax mu am solo di ko bàyyi xel Euh, ci ci bi ci biir sëy jigéen aussi li alquran di wax waa asiruhunna bil maaruf dafa bëgg ku koy soxla ku koy ku koy yittewoo kuy xool ay mbiram di ko toppatoo mais léeg boo nekkee sa jabar ci kër ñaari jabar boo ko bandone toppatoo ko xamatoo solu na xamatoo tilim na xamatoo doxi na xamatoo toog na bandone ko mu yëg ne yittewoo ko toppatoo ay mbiram euh, dafay tax mu yëg ne moom nekkam ci kër gi amatul njëriñ waaw parce que place ba mu fa amoon amatu ko waaw jigéen dafa bëgg ku koy toppatoo ci alal ku koy neexal ay cadeau ku koy defal yooyu ku góor dafa bokk ci li muy bëgg moom it euh, euh, mu yëg ne bàyyee nga ko baatam waaw loolu mas naa ci mas naa ci waxtaan ak benn tubaab ci tukki bu ma tukki woon France waxtaan di ci waxtaan ak benn tubaab euh, mu ne ma ñoom Europe li ñuy wax euh, autorité parentale baatu yemoo dañu fexe ba del jëlee ko ci góor ñi yóbbu ko ci jigéen ñi mbaa ñu bàyyi ko sax ci diggante bi kenn yoru ko waaye li ci ëpp boo xoolee jigéen ñoo ko yor mu ne loolu dañ ñoom tubaab bi bi ñuy xewal loolu ci civilisation moderne bi moo jóg euh, dañ ci doon tiitaru rek mu ne ma dañ ci doon tiitaru di wane ne ñun ñu civilisé lañu ñu nàngam lañu ñu jox jigéen darajaam lañu parce que ñun comme dañu yàgg toroxal jigéen l'islam yàgg ko teral biñ demee ba bëgg a dabu lislaam nangu jigéen ñi ci ñoom dañu indi émancipation indi égalité indi mu yooyu fexe nag ba yaatal ko nag mu ne wante euh, boo gisee léegi tubaab yi di daw di takki nit ñu ñuul mu ne parce que yàlla dafa def ci deretu góor mu bëgg kilifteef bu nekkoon ci këram ak lu ñu tudd tudd égalité ak émancipation ak nangam ak nangam ak civilisation lu la mën a jox ne góor ci biir këram bu doon sago mooy yor kàddu ñàkk mu ne ma tubaab bi ak nit ku ñuul ki nag waaw mu ne ma ñun dañu fexe ba loolu rëcc ñu mu mi ci xol xolu tubaab bu ne moo tax ñu ci bari dañuy takk nit ku ñuul parce que dinañ leen nangu ñoom nangu nañ ko leen yëlef donc kon góor nature yàlla dafa def mu bëgg kilifteef ak baatam dana diisoog yow loolu la ko diine sant ci lépp lu muy dogal ci famille bi farata la mu war ko def mais bu décision jotee bàyyee ko baatam bàyyee ko kàddu gi dana tax mu dal dana tax mu sentir ne moom mooy boroom kër gi dana tax mu sentir ne moom mooy kilifa gi waaw bu fekkee ne nag diisoo ngeen ba noppi dogal jot na jël kàddu waaw na jël kàddu waaye bul xëccoog man baatam xëccoog baat ak borom kër baaxul waaw li ñu tuddee kalimatul xoliya mooy kàddu gi gi gi gën a kowe ci diggante ñaar ñuy sëy ci biir kër gi ak famille bi euh, góor gi toujours li ne ci deretam mooy nañ ko ko bàyyee moo na décision boobu na ko jël waaye loolu bu demee ba ci di waxtaanee li ñuy tuddee autorité parentale danañu wax euh, góor ku góor kooku cër boobu ñuy ko jox ci yan condition lañ ko ko joxee bu demee nag ba condition yi mënu mënu koo remplir bu boobaa dañuy nangu cër boobu ñu ko joxoon lu tax loolu buñ duggee ba ci wàllu autorité parentale danañu danañ indi loolu euh, beneen bi nga xam ne euh, dem na ci ci li ñu gis ne day yàq sëy yi diine di ñu ko tere jàngal ñii ñi ñiy jëngu ci waat yooyu di ñu ko tënkal ñii dama ni docteur Marine bi ma lay wax mu ne fiir fiir lu jara euh, lu yàq sëy yu bari la fiir ci ku góor ki ak fiir ci fiir ci ku jigéen ki lu yàq sëy lu bari la euh, ndax xam nga sëy sëy yi Marine dafa wax ne euh, na nga bàyyi xel ne ku góor ki buy sëy ak ku jigéen ki ca seen première sëy ku jigéen ki ci mbëggeel lay sëy ci amour lay sëy ci ci ci ci ci ci ci lu ko neex ci ku góor ki lay sëy ku góor ki itam lu mel noonu lay sëy ci ku jigéen ki am maa nag mooy ngoro ga bu ñu demee nag ba sëy am ñu dox weer walla ñu dox at wala ay at walla doom feeñ bu booba euh, plaisir bànneex booba nga xam ne moo moo doon frappé ku nekk ci sa morom nee na dafay wàññeeku 80 pour cent 80 pour cent yooyu wàññeeku ca bànneex ba fan lay jëm mu ne ci ci ci ci ci ku nekk yaa ngi sàmm sa morom léegi ku jigéen ki bëtam mooy xool ku góor ki ku muy waxal fu muy dem fiiraange foofu lay commencé ku góor ki itam fiiraange foofu lay commencé ci ku góor ki ku jigéen ki ndax boo gisee li koy waral nee na ñaare ñaari xale bu ñuy sëy du fekk ñu am man-man du fekk wërsëg bari du fekk ñoom seen loxo jot seen gannaaw la plupart li ci ëpp muy ku jigéen ki ak góor gi rawatina ku góor gi buy sëy sëyu yu njëkk yi moom day fekk dara du fa ne man-man du fa nekk dañuy war a ànd rek ñu dem ba ànd amma bu ñu demee nag ay at ay at ci la situation yi di dabe situation dafay faral di dabe buy ko góor gi ci la ko situation di dab moo xam wërsëg la commerce la moo xam euh, politique la doon def am na am na yokkute nekk na kilifa moo xam administration la moo xam lu mu doon mais euh, buñ demee ba euh, ba xaw a mage ci la ci la ci la situation di di ñëw bu situation ñëwee nag léegi wërsëg dafa soppi nit day soppi doxin day soppi waxin day soppi xalaat day soppi jëfin day soppi comportement loolu mën na dab ku jigéen ki yàlla xëyle ko wërsëg léegi dootu xool jëkkëram bët ba mu ko doon xool ba ñuy doog a sëy dafay gis ne moom léegi man na manal na boppam man na dem ak boppam alors bu boobaa dana am comportement boo xam ne ku góor ki da koy fiire ndax relation ak yam ko daan tere yépp mu di ko moytu ndaw si dootu ko moytu parce que day jàpp ne mënal na boppam amaa ku góor ki bu demee ba loxoom jot gannaawam te mën naa am ku jigéen ki sax loxoom jotul gannaaw wala ku góor ki ëpp moyen ñaari danaan man naa ko kër gi dara manqué wul dund manqué wul oto yaa ngi nii euh, dépense bi manqué wul dara manqué wul comme ndaw si li mu bëgg yëpp def naa ko maamoom moom sama poos nag léegi lu ma neex laay def bu ko defee bëtu fiiraange day dal di ñëw bëtu fiiraange day dal di ñëw donc diggante bu bu doy waar la déclancement boobu nga xam ne ku góor ki mën na ko déclencher ci tiraanga dab ko wala ku góor ki mën na ko jigéen ki mën na ko dem tiraanga dab ko foofa la la xëccoo fiiraange di am ndax ku góor ki day jàpp ne lu ko neex def ku ko neex waxal foo ko neex dem euh, am na sax habitude bu mel noonu ci ci ci ci Sénégal dañ naan góor bu ko neexee fo njuumte la góor bu ko neexee fo culture bu baax tënku ko diine bi nga xam ne moom lañu ñu war a dund tënkul ñu góor bu ko neexee def góor nag bu ko neexee mën na takk waaye nag waxuñ ne day foyi mais bu ko neexee nag mën na takk mais takk ga nag day am condition waaw benn nag ñaar takk ga day am condition mooy lu mu néew néew na nga ki ci kër gi na nga ko yor na nga yor njaboot gi bu ñu jooy dara waaw am nga nag maturité am ñaari jabar aussi ba ñett ndax ndax am nga maturité am ko seere leen ñoom moralement matériellement ak la ca aju yëpp bu boobaa dañ naan la boo bëgg a takk da ngay takk bëgg takki takki nag du fo lislaam autorisé wul kenn ne góor nga sa dépense mat na sa lépp mat na ci kër gi ñu ne góor la lu ko neex def bu ko neexee fo jabaram dafa war a xam ne jëkkëram góor la ah déedéet jëkkëram góor la ci bu gisee farata war a takk te conditions yi remplir mën na takk ndaw si sañu ko bañ ndaw si sañu ko bañ bu ndaw si sañu ko bañ bu fekkee ne signé ak moom benn mais loolu bu ñu demee ci wàllu sëy dinañ ko tekki parce que itam am na jamono nga signe ak sa soxna ne ko yow rek lay doon euh, signé ante ak moom ci këyit booba euh, xale yu ndaw ngeen situation ñëwul nga dem ba sa loxo jot sa gannaaw nga jàpp ne war nga wut keneen charte ba nga duggee woon ci sëy ba mooy yaa signé ndaw si benn charte boobu danga koy respecté dexoon na ci diggante Seydina Ali ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mais danañu indi leeral loolu daf ci am nag situation yoo xam ne du caa ngeen góor lu ko neex def déedéet dafa am charte sëy bi dafa am charte charte yooyu boo ko respecté ci njëlbeenu sëy gi signé ndaw si dara boo demee ba ci biir sëy ba boo ci bëgg a génn diisoo ak moom wala nga def wala nga def ci suuf wala nga def ci suuf waaw léeg loolu bari na ci waaye am ma diisoo gi nag ba am autorisation dana jafe wante loolu lañ la gën a digal ci nga xëy tas famille ba ndax yow yaa ko takkoon ci benn kon charte la woon pour sëy bi mën a am donc situation dafay dab ku góor di dab ku jigéen foofa nag ku góor ki bu bàyyiwul xel tas njaboot gi tas famille bi ndax day jàpp ne lu ko neex def ku jigéen ki it noonu te tas te famille ak wax nañ leen ne mooy tas te nation bi waaw parce que famille bi ak njaboot googu bu rupture amee mu répercuté ci ñoom rek ñooñu ñooy ñooy wàcc ci nation bi loolu lu lu lu jara lu jara bàyyi xel la euh, rawate na comme ni ñuy wax jamono boo xam ne euh, mbëggeel dafay wàññeeku waaw bu mbëggeel wàññeekoo nag ndax yàgg am na miineel am na euh, mbëggeelu yaram ak plaisir wàññeeku na man-man ñëw euh, euh, li nga yëgatul yow ci ku ku góor ki li nga dul yëgati ci ku jigéen ki ci biir kër gi ndax wàññeeku na léegi mën nga ko am feneen parce que am nga moyen foofu fiiraange dafay dal di dugg boo ragalul yàlla bëgg ko wuti feneen ak wutin wu jaaduwul waxtu wu ne yaa ngi génn waxtu wu ne yaa lu la neex sa soxna xam ne yaa ngi ci lu la neex parce que da nga mën sa boo waxee nga ne ko sa yoon nekku ci maamu sama bu boobaa fiiraange ñëw fiiraange nag bu ñëwee dafay détruire dafay loolu mooy jur euh, mariage bu tas